ok Mamour Ibra Kane moom moo jiite mouvement euh, Demain c'est maintenant nee na Ousmane Sonko ko war a xoolaat parce daal euh, il a l'impression que ça ne daal. Mamour Ibra Kane moom moo ça ne va moom. daa wàcc at nag. ah bon waaw la. ah, ah est-ce que nekkul ci domaine bi xam domaine bi moo tax muy artu. ban domaine moom c'est un politique moom day wax en tant que politique wala en tant journaliste. non ah, noonu kon kay da bàyyi boobu journaliste yi. ok te ku mu doon jàppale. Amadou Ba. kak ban télé moo fi njëkkoon commencé di jéem ay résultats yi Amadou Ba fabriqué woon. <laughs> xaw ma ko nag. <laughs> xaw ma nag daw res. ah ah ok ma dugal naa loolu. yeneen télé yëpp di joxe quatre vingt dix pour cent télé yi am benn numéro bi ñuy joxe moom moom ITV rek nekk fi di wax ay numéro yow kenn xawul fu mu ko jëlee. ok kon est-ce que vous êtes pour à ce que ñu def des assises de la presse bu ko jaree parce que. si ça continue comme ça quand même assise ba pare. dina dina am dina garaaw quoi dina doy waar. gars yi daf lañ assise bi ba pare non. oui oui am na lu ñu tënkoon justement. Ah, contre la presse boobu. Ah, loolu lañ mettre ko en pratique quoi. parce que ñu ngi ciy liggéey quoi. loolu moo ci des. ñoom euh, doyen Ibrahima Bakhoum ak ñu ñoo ci nekkoon. je pense ci travail. oui oui def nañ ko def nañ assise bi ba pare. ok maintenant li mu wax démb aussi mu xaw a jaaxal ñëpp ah. euh, ci koo xam ne yàgg nga fi nekk di ŋàññi nguuru président Macky Sall. que ne benn am benn mainmise ci doxalin li nga xam ne moo di yoon di wàllum justice démb mu toog ci ndaje ay jeunes yu bëri wër ko mu nekk rek bi Assane Fall defee am mbir ministre de la justice dafa ma envoyé vidéo bi. Ah. mën na ko defal sa liggéey. Ah. mais là aussi ñëpp dañuy jàpp ne wala euh, ñëpp également dañuy foog ne cordon ombilical. yoroon dagg daggagul. ba léegi daggagul. Ah. daggagul parce que procureur bu fa nekkoon démb moo fa nekk ba tey. mais est-ce est-ce que loolu raison la je veux dire. recours borom corona bi de parce que procureur bi fu nekkoon démb moo fa nekk ba tey. et puis. mais terewul teg nañ fi gouvernement bu bees contexte bi mu ko waxee dafa doon bëggoon won jeunesse bi won booy Pastef fii bu la leen bëggoon jox exemple. est-ce qu'il y a pas de le dire. dem ba ci dugal sax la ministre la ko wax ci format yu bari. mooy Sonko mooy koo xamante Sonko il ne fait pas de la politique Sonko il est sincère dans ses bottes. il est sincère. mais loolu c'est gravissime di la seeraan nga ne ma. ma ma wax ministre bi. lan defal sa liggéey. waaw. waaw mooy ute naa ki fi ki fi waxoon eh, def leen demande bi dinaa ko. signé moo ma envoyé ba fi rappeurs yi demee di njekk ci kii laa ci li dof Macky Sall mu leen waxoon def leen demande bi demande de liberté kii bi dinaa ko dinaa ko àpp. bi sax contraire bi la ñu gis. kon daal yow jàppe woon na lu garaaw la. waaw garaaw la c'est normal. ñu bëri jàpp ne daf ko rëcce wartoon ko wax lii. garaaw la garaawul. fii Sénégal li garaaw na nag de li garaaw na. waaw garaawul waaye. loolu si garaaw. def assise de la justice yàggul nga ne jëwriñ mu envoyé na ma vidéo de la justice bi lan lañ tënkoo ko tënkaguñ dara. yooyu pareeguñu sax mais am intention justement pour. ah la ñu xaar changer justice bi ni muy doxee. la xaar la ñu xaar. kon daal gisoo ci benn lapsus gisoo ci mm-hmm. dara daal lu. noonu yee toog rek di xaar fu mu defee erreur ñu nekk ci ko loolu grave. mais loolu dañ ko yàgg a xeex de jëwriñ. yan Sénégalais. séparation des pouvoirs. waaye mais dina ñëw. yéen li bëgg a wax ni kon Sonko warul woon yëg di sax jàpp nañ ci Azoura Fall quoi ministre de la justice waru ko woon sax informé. Alassane Fall de la justice waru ko woon sax informé quoi. ah mais fekkee am na séparation de pouvoir kay. ah yoonam waru ci nekk non. ci yenn personnage. mais kooku. la lay représenté est-ce est-ce que mu bañ a intervenir. sans inclure que waruñu ko sax yëgal. mais ni ko ne dañ laa fal pour nga def sa liggéey xëy na def liggéeyam. dama lay laaj. mais pourquoi di envoyé ay premier ministre na ko ndax. ma def wala ma bàyyi. jamono yële jamono yële rakk jomaay ko fi woon. non foofu nag nee bokk ñu xaw ma. ay doom bàyyi xaw ma la ko waxee noonu. ay doom bàyyi lañ. waay waaw ah? eh. rakk président la cousin wu président la lan moo ko jëlee jomaay nga yaakaar yëngu ko. waaye yëg na ko waay. loolu mais lan la wax Diomaye. alkaati yi def seen liggéey la wax loolu. kon daal pour yow ni ñu koy garaawale. ni koy garaawale ni ñu koy xëccee yëpp. dara dara nekku ci daal. waxkat yi fi nekk rek di wax ko yaa ngi déglu Adama Gaye di ci wax tey suba la eh, RFM eh. eh. Adama Gaye di ci wax. daal mhm. di naan bu dee loolu boo ko def gravissime. oh mais c'est loolu xam nga Sénégal aussi dañ ci dañ ci yàgg xeex jawrin di wax que ne président na génnee loxoom ci wàllum justice ni muy doxee ministre bi na ko génnee mais après moom mu toog comme ça. ay nit di ko seetaan après mu wax ko ñu bëgg a wax ne non dara parce que ñoom toogaguñ et cetera est ce que loolu excuse la. est ce que yow rappelé wuloo France euh, euh, Benalla la Benalla Benalla la. mooy euh, président Macron ba muy doogoo falu la. oui amoon na ku bokkoon ci sécurité quoi avant muy falu. après ba mu faloo mu continuer di bokk ci protocole. Mhm. def fa benn comportement. gars yi ko. gars yi dañ ko jëndee ba pare ko ay léppam ba pare jëndee ko ci carton bi carrément il fallait que gars yi xaar ba mu def infraction gars yi doog ko jënd. ok. Hmm. dañoo nekk ci tabaxaat dañoo nekk ci tabaxaat l' intention bi ngay xool intention wu Sonko ngay xool. mais intention bi am ni nga ko mënoon kii que. lu lu mooy loolu aussi toog ñëpp di la nga naan envoyé na ma vidéo ak loolu aussi ça paraît un peu. war ko defal sa liggéey waaw léegi Sonko moom moo def faute bi wala ministre bi moo def faute bi. am na sax ñu naan ministre bi ak ni ñoo ngi ko tàggee naan <laughs> nit yu yoon la. neutralité nekkee dafay jé vidéo di ko envoyé premier ministre. Hmm? loolu aussi. Hmm? Euh, là aussi dafa waaleykum salaam jaajëf. xam nga laa aussi je pense dafa dafa xaw a kii quoi. yow gisuma ci benn jafe-jafe. loolu nga ko xoolee angle bu nekk nag te booy boobu xam nga ñaata ak ñaata mois def ci prison bi est-ce que. oui onze mois. pour quelle pour quelle cause. nee nañ nee nañ détenu politique la. <laughs> est-ce que dofeewul ci prison bi sax parce que nee na naa la woon garabam ba oui parce que procureur daf ko libéré na na dem. ñu topp ko psychologiquement parce que problème cicatrice ah oui la te wax loolu naanu loolu garabam ça se comprend mais euh, kaso bi na ñu fa dof de. ok ah. ok mais te li ci wàllum. Euh, séparation des pouvoirs et cetera et tout est-ce que quand même bi ñu génne ci lii aussi ñu def bourde bi quoi quand même. mais du yomb de séparation des pouvoirs bi du yomb. Ah, comme ñoo ko wax na foo ñu day am day am pratique en cent pour cent. Mm-hmm. kii du yomb. Mm-hmm. c'est mm-hmm. bon. Ah. du yomb Sénégal c'est séparation des pouvoirs en absolu. Mm. ak corruption. dina fi corruption. loolu du yomb. ok on verra en tout cas suñu beneen gan bi ñëw na <laughs>